maaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii ci biir julikaay bii di Sud Quotidien suñu naataango yi ñu ngi dalal directeur des domaines di moom Hadj Mamadou Diaw ñu gën ko xam ci turu Mame Boye Diaw moom nag tey ci waxtaan gi mu seex ak suñu naataango yi ma ngay ñëwaat nag ci li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci biir APR maanaam daal ñoo xam ne nag dañoo nekk ci biir parti bi bëgg a wuutu Macky Sall wante duñu ko wane wante ñu ngi koy jëfee nag ci biir euh, parti bi moom moom nag di Mame Boye Diaw di leen xamal ne su fekkente ne nag ñoom tey jii daal bëgg nañu nag daal di wane seen bopp faw nag ñu def comme ni ko Macky Sall defee ci atum 2008 euh, maanaam daal ba mu gisee ne dara doxatul nag ci parti bii di PDS dafa jël fitam daal di koy takk ba mu dëgër génn nag ci biir euh, parti boobu Mame Boye Diao daal ne ñëwaat tamit ci juboo guñ doon yaakaar ci diggante maître lay waat ak Macky Sall wante it ñëw na ci yëngu-yëngal yi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku fan yi yëpp nag ci mbedd mi ndaxte ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa ñoo lànk dañ leen di faral di gis nag ñuy génn di ñaxtu yenn ci ay jafe yoo xam ne daal askanu réewum Sénégal jël ci wàll gi ni mel sax kii di Mame Boye Diaw di xamle ci biir acolikaay bii di Sud Quotidien ne gouvernement bi bu defoon li ko war daal mun nañu wax ne tey ji doxum ñaxtu yu bëri yooyu duñ ko fi nemmeeku ndaxte moom moom di Mame Boye Diaw daal dina gis ne am na yenn ci ay question yoo xam ne nag askan bi dañu koy fësal te ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi duñu génn ngir daal di joxe ay tontu moom sax mu gis ne su fekkente ne woon nag am na yenn ci ay question yu ci mel ni wàllu pétrole bu yàgg nag lañu waroon a génn wax nag lépp lu jublu ci wàllu contrat bi loolu day indi rek ne askan bi def lay wóolu ndaxte lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu xibaar euh, ci wàllu gi ni mel jox nga ko ko ba mu mot euh, sëkk muy waxtaan bu yaatu boo xam ne nag kii di Mame Boye Diaw seq na ko ak suñu naataango yoo colikaay bii di Sud Quotidien njiitu réewum Sénégal ak joriñ gu njëkk bu réewum Canada di Justin Trudeau démb ñu ngi doon jàkkaarloog parce que du xibaar yow colikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ni ci ndaje boobu nag Macky Sall daal di ne euh, xam xamle daal ne ci wàllu mbirum góor jigéen moom kenn du ko dëggal nag fii ci biir réewum Sénégal ndaxte suñu aada nanguwu ko suñu diine it nanguwu ko coolikaay bi di la soleil ne kon dafa mel ni ne njiitu réew mi moom dafa buggoon nag ñu ndar képpe lépp lu jublu nag ci wàllu wax ji ni mel coolikaay bi di 24 heures ne kon léegi leer na ci wàllu moom góor jigéen ñu daal di koy dëggal nag fii ci même réew daal Macky àndu ci tey àndu ci ëllëg coolikaay bi di laas di ko ci yokk di ko xamal ne njiitu réew mi moom bëggutul sax ñu yeey yàbbi nag jëmale ko ci wàllu gi ni mel ndaxte moom nee na nag tànk ma ngay nekk njiitu réew fii ci même réew daal kenn du fi légaliser lépp lu jublu ci mbirum góor jigéen cuulikaay bii di Vox Populi ne ginnaaw ba mu ko waxee kii di Obama Macky Sall it fësal na kàddu yi ni mel nag joriñ gu njëkk bu réewum kanada kii di Mame Mactar Guèye te mu jiite nag Jamra moom it di xamle ne fii ci biir Sénégal moom incha allah kenn du fi légaliser lépp lu jublu ci mbirum góor jigéen ñu jukki nag jëmale ko ci mbirum maître Abdoulaye ndax te tey ji direct news moom mooy laajte lan moo waral nag tekk tekkaaral bi nga xam ne moom la maître Abdoulaye Wade nekkee moom mën nañu wax sax ne laata élection présidentielle waatum 2000 2019 ba léegi daal kenn déggatu ko nag muy wax jëmale ko ci wàllu politique wala boog ak leneen lu mu mënti doon tey ji sax suñu naataango yi seex ci waxtaan ak ñenn ñuy jàngat lan moo waral nag tekk tekkaaral googu ab luubal la ñu nemmeeku nag ci ndàmpaay yi nga xam ne nguur gi daf ko jëloon ngir jébbal ko ñenn ci ñi nga xam ne nag dañoo nangu seen kër culikaay bi di libération di ñu xamal ne ginnaaw enquête bi la ñu teg loxo nag homme d'affaires bii di Matar Diène ndaxte moom daal am na koppar gu toll nag ci quatre cent cinquante millions boo xam daf ko dugal ci poosam te nag koppar googu dañu ko waroon a jox nag ñi nga xam ne daal tey ji nguur gi dafa nangu seeni suuf wala bokk seeni euh, kër muy nag mbir bu doy waar beneen mbir bu doy waar ngi nii nag autolikaay bi di enquête moom la daal di xëyee moom mooy responsable cellule performance ca AS Dakar Sacré-Cœur moom mi nga xam ne nag caabi féete na ko gannaaw ndaxte la koy tuumaal moom mooy dafa doon sàkku ay xale yu góor ñi nga xam ne daal ñoom ñoo bokk ci biir centre bi autolikaay bi di enquête du ñu xamal ne kooku di Olivier Brice Sylvain 2020 moom de ba muy jàkkaarloo ak ñi nga xam ne dañoom ñooy enquêteurs yi dafa weddi ba tëdd ci naaj bi nag bépp tuuma boo xam ne la mu doon def moom mooy ay séance de massage dong la autolikay bii di mi ngi ñu xamal ne moom fu mu nekk nii dañu ko placé sous mandat de dépôt jeexale ko nag ak wàllu lamb ak autolikay bii di suñu lamb ñu ngi ñuy xamal staff bu Boy Niang ñoom de fu mu nekk nii nag bañu ñu seen mbër bii di Boy Niang daal jàkkaarloo ak ki nga xam ne de moom mooy Balla Gaye numéro 2 wante nag ñoom ñu nga xam ne daal ne mbir yi nag du yombee noonu ndaxte daal balaa kii di Boy Niang di daje ak Balla Gaye numéro 2 faw nag ñu daal di koy jébbal koppar gu toll ci quatre-vingt-dix millions lii moo nekkoon dox di lukat yi li gën a fës